bàyyi teen toppale bàyyi sàcc bi jël xaalis bi delloo ko ci askan wi te ñu xam ne Sénégal dëkk bu am naataange la mais c'est domage que on nous dans des discours de pauvreté dans des discours de rétrécissement dans des discours d'un pays de non croissance alors que c'est pas exact li nga xam ne moo constat mooy réew mi am na naataange mais loxo yi nga xamante ne bi ñoo ko waroon téye loxo yooy ay loxo sàcc la mooy li nga xamante ne mooy li fi nekk. Hmm. voilà. du la remède euh, du euh, peut-être la solution du jub jubal jubanti waaw jub jubal moom nañ ko commencé ci pale bi jaar mer moo cité kër góor gi buntu këru ministre yi DG ñoom ñëpp. Hmm. fii amatul benn sénégalais buy toléré benn homme politique buy def ay yëfi tappale. Hmm. parce que loolu dafa féete boor li tax mu féete boor mooy. dafa am nit ku tudd OS. mosul mhm. am mbooloo kenn xamu ko ñu ne salafiste la gëmul sëriñ. Mhm. yooyu yëpp ñu caricaturer ko noonu terewul ay sénégalais yi ëpp ci ñoom ànd ak moom utal ko mbooloo ak xaalis. Mhm. xam nga loolu loo ci jànge mooy mbir mi nekkatul ni yow yaay sàcc xaalis di entretenir say say nit. mais sénégalais yi ñooy décider kan la ñuy àndal ba pare di ko entretenir loolu nag ku ci amul jàngat ca dëgg-dëgg wax dëgg neex yàlla continent rien compris cela veut dire quoi sénégalais yi ñooy joxoñ après kooku bu ko neexee bu amee gàllankoor mu joxoñ keneen mais sénégale yi moom ñooy joxoñ léegi nag loolu ñi fi nekk bu ñu ko jàngatee xam ko intégré ko mu doon input boo xamante ne bii input principal lay nekk du nekk secondaire loolu da di dimbal ci quinquennat bi nga xamante ne bii ci la ñu mm. sóobu. Mm. bu ñu ko deful sénégalais dañuy joxoñ keneen rek loolu mooy li nga xamante ne mooy li fi ne amul leneen. Mm. ñu leen di xaar surtout ci wàllu woowu amaana looloo tax le président de la république jël ay mesures ci wàllu foncier bi mesures yu concerné gox yu bëri ci réew mi mais aussi xel yi dem ci littoral beeg ci corniche yi tout mais avant ñuy xuus ci sujet boobu ku def annonce bi mu ngi ko defee. ca RTS muy Pierre Goudiaby Atepa ñu bëri aussi joxoñ loolu baaraamu tuuma daal di critiquer ne du moom vraiment moo war a annoncer mesure bu am boobee dayu euh, te te autorités yi nekk fii loolu critique bu jaadu la wala. non man awma problème ci kan moo ko annoncé peut-être moom je ne sais pas euh, je ne maîtrise pas trop en fait l'agenda de ce monsieur je sais que il fait partie des. Mhm. des des des médiateurs de comment dirais-je encore du Cap Manuel loolu moom Sénégalais yëpp xam nañ ko léegi nag lu tax moom moo ko annoncé man loolu loolu moom wax dëgg neex yàlla du ma ci taxaw trop li am solo daal mooy am na ay nit ñoo xamante ne du fait de leur proximité de la famille présidentielle d'alors wala ay nit yu gudd loxo wala ñoom ñu gudd loxo fexe nañ ñoom ba euh, am ci littoral bi léegi nag littoral bi man l'arrêt des constructions ou bien l'arrêt des travaux man j'aurais aimé que un tribunal prononce une ordonnance génne une décision ñu arrêté ko léegi ba fan la président am sañ-sañ ak doole ak yan information la am ba mu defee noonu raison d'état la du raison d'état xaw ma mais boo waxee li il va falloir aussi tamit nga développer ci beneen ligne bi mooy ligne bi ma njëkk a wax ñii nu ñu def ba am ko est-ce que c'est légal est-ce que cohabiter avec le littoral est-ce que loolu légal la parce que aussi tamit ëtt boobu doon na ëtt boo xamante ne bii du ñëpp ñoo fa mën a accéder ba pare aussi tamit dafa doon euh, loo xamante ne bii Sénégalais yi dañ koo bokk mhm. bëgg di féexlu ji sport léegi léeg am na jàngoro yoo xamante ne bii médecin bi danaan la dëkkal ci booru géej gi boo amul moyen tamit léegi léeg del bu liggéey géej del doxantu ci plage bi bëri na hmm. yenn jàngoro yoo xamante ne bii ci thérapie bi médecin bi daf la koy recommandé yooyu noonu yëpp boo ko boolee dangay xam ni ñu fexe ba ku ci bëgg a jot jot ci ñu tolloo ci ak ak yelleef ak doole ak bourse dafay am solo hmm. après nag l'arrêt de ces travaux beaucoup d'eau Euh, maanaam nit ñi wax nañ ci ay yoon yoon ça tourné en boucle. Mm-hmm. léegi nag nañ xool parce que c'est sûr que ni dina am ay ñoo xamante ne bii l'État essayer de se rapprocher d'eux e d'elles ou bien d'elles mm-hmm. pour laaj leen xool à travers service quoi de euh, mm-hmm. déconcentré laa bëgg a wax nu ñu def ba am. yan implication yan ramification léegi nag à la suite de ça. bu boobaa mën nañ toogaat fii defaat ci ay développement mais pour le moment ce qui est mooy arrêté nañ ko de même que euh, yi nga xamante ne bi mooy mburkaat yeeg et cetera donc loolu bu ci tolloo les Sénégalais seront édifiés daal mmh, parce que en 2020 euh, Ousmane Sonko lu mu doon wax mooy bu ñu ñëwee lépp la ñuy raser non lépp la ñuy raser da koy wax nii rek nee naa la la conquête et l'exercice du pouvoir bokkul mhm. mënoo ñëw raser ay yëfi jàmbur te droit mayu la ko tegoo ko fenn parce que voilà yow da nga doon wut rek nga wax loolu. Mm-hmm. moom du ñëpp la ñuy raser seen i mbir wax dëgg na yàlla nit ki nga xamante ne bii daf ko teg ci yoon jaarale ko ci yoon boo ko raser sëñ bi bu la yóbboo tribunal lañ lay daan. Mm-hmm. li ma gëm mooy dañu dem vers la médiation vers une approche intelligente waxtaan ak sénégalais yi léegi sénégalais yi wala waxtaan ak euh, propriétaires yi yi nga xamante ne bii ñoom ñoo ko moom. léegi de toute façon moom un terrain d'entente sera trouvé et on verra loolu mooy li nga xam ne mooy li fi nekk. ay dédommagement. bien sûr loolu kay il y a même pas de débat à ce propos moom pour cause d'utilité publique bu nekkee dañ ko invoqué wala ñu évoqué ko mais bien entendu que état dina jël xaalis xool ndàmpaay et je sais que ce sera au plus fort bu nekkee 1 million nga ko jëndee mën na la jox 1 million 500 1 million million 750 pourquoi pas Mm-hmm. on verra daal loolu moom mooy li nga xamante ne bii mooy li nekk voilà. Mm-hmm. Euh, le président de la république aussi wane détermination jëm ci xeex wàll woowu def benn visite inopinée fële ca Mbourkat foofu tamit nga xam ne ni. coom suuf bëri na fa def fa benn discours bi nga xam ne ni discours bu ferme la jëm ci euh, pasar pasare bu ñu pasar pasare suuf si ci ci ci ci localité boobu tànk woowu. am na aussi ñu ko critiqué naan mu waxee du waxu. loolu wax naa ko léegi nii bi may embrayé di dem Mbourkat. loolu mhm. xanaa tu n'as pas bien écouté mais loolu wax naa ko je l'ai dit il s'y est rendu pour effectivement constater de visu dégâts yi nga xamante ni à partir du Cap Manuel il avait u vent de ça loolu je l'ai déjà évoqué léegi ban suite la ciy joxe loolu il va falloir que ñun ñu xaar moom fan la ciy taxawee mais pour le moment. Mhm. foofu arrêté nañ affaire yi après on verra je sais que ne foofu vraiment gars yi dañu yoroon seen paaka rek mel ni ko tiim benn benn benn benn nag wala je pas euh, benn gàtt di ko fees nu mu leen neexee ay 600 hectares 20 13 66 ou 60 et cetera pour benn nit bon je sais que ni daal moom ramification bi ma ci njëkk a tiré mooy l'affaire de la motion de censure moom Diomaye laa déjà réglé kooku moom dootoo dégg kenn kuy taxaw fii naan dañuy wax ay wax yi euh, euh, comment on appelle encore euh, affaire u motion parce que c'est réglé aussi moom il a anesthésié l'opposition déggatoo kenn ko wax ñu doon jéem a développer ay velléités yëpp ak ay tentatives loolu c'est derrière nous donc d'une pierre euh, trois coups voilà noonu la ko lijjantee léegi nag ñuy xaar ba xam daal. mais dafa dafa am lien. parce que yaa ngi koy wax di ci revenir dafa am lien est ah mais loolu c'est de l'analyse pure loolu kay le lien il est ça saute à parce que il a junj na koo xamante ne bii député la wala junj na am na tur yu génn yoo xam ne ñooñu ay député lañ. ba pare c'est des députés forts de Benno Bokk Yaakaar. c'est pas des députés muy ay députés yoo xam ne c'est des identités ñu sénégal yi xam. ñoo xamante ne bii euh, y avait un premier communiqué qui était sorti du genre euh, motion de censure suñu axalaat suñu yelleef après ñu génnaat beneen communiqué boo xamante ne bii def nañ ci ndox mu sedd guy yooyu yëpp daal je pense que ni président il l'a bien suivi il l'a analysé il a posé un acte politique parce que li mu def aussi tamit c'est pour réparer une justice sociale boo xamante ne bii bu ñu demee ba ci kanam ci la ñuy gis la réparation mais aussi tamit y a de la mise en scène politique il la perche micro de la RTS le président fait un calcul euh, euh, des hectares pour dire que 3 hectares on le confie à la mmh. ville de Thiès 120 parcelles loolu mënuñu ko bàyyi noonu ça vraiment c'est des émotions fortes auprès des Sénégalais des concitoyens loolu ñëpp xam nañu c'est de la politique mais euh, nañu fexe daal ba justice sociale bi prévaloir ci kaw approche politique boobu nga xamante ne bii mënuloo ko regretter parce que aussi tamit on est sur le terrain politique voilà. Mm-hmm. Euh, ñoom itamit muy waa régime bi am ñu jóg aussi di leen joxoñ baaraamu tuuma ne ñoom aussi ils ne sont pas clean mm. ay par exemple am na ay tur yu génn wala tur bu gën koo xam ne mu ngi ci guvernement bi. ñu ngi naan am na ànd filaawo yi et cetera et cetera. non wax ma kan la rek moom ba ma waxee kan la man nga man moom man moom wax dëgg ne yàlla mënu maa ragal wax ma waaw ah, acca ku ci mel ni eh, le ministre de transport El Malick Ndiaye nee mm-hmm. nañu am na am na am na ci bande filao yeeg yi demee mm-hmm. noonu